asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Mamadou Yaya Ly mu nekk responsable politique fal sa ji dëkk Caaroy Kaw muy milité ci parti bii di Alliance pour la République mooy le parti au pouvoir dont le président est le président Macky euh, tey nag ñu invité ko fii ci Sénégal ñu fas yéene waxtaanee actualité politique ak lépp loo xam ne dafay concerner Sénégal ak li ko wër monsieur Ly ñoo ngi lay jaajëfal maa ngi lay jaajëfal monsieur Kandé maa ngi nuyu les internautes de Sénégal euh, di jaajëfal ñëpp buñ ñu bàyyee nopp bàyyi ñu xel. Euh, man la professeur euh, Mamadou Yaya Ly professeur de lettres modernes euh, fonctionnaire de son état donc maa ngi servir au lycée Thiaroye comme professeur de français et des universités professionnelles comme professeur en technique d'expression française pour préparer les étudiants au BT et au BTS. donc di nekk tamit un responsable politique dans ma commune à Djiddah Thiaroye Kao di département de Pikine ma nekk tamit membre du bureau de l'APR de la commune nekk membre donc du MENER du département de dirigé par, par Madame Maïmouna Baldé donc euh, la donc MENER national dirigé par Maïmouna Sissoko ma nekk tamit membre du bureau du mouvement national du mouvement national des enseignants républicains département de Pikine coordonné les enseignants de Benno Bokk Yakaar et de l'APR donc dans la commune de Djiddah Thiaroye Kaw maa ngi leen di jaajëfal. d'accord yow MENER nga nekk Pikine au niveau national gis nañ ne quand même dafa bëri problème euh, dafa mel ni Euh, ça ça ça ça ça reste mën nañ ko bari na ci lu ñu koy critiquer ci biir rang yi Euh, lu waral loolu selon toi. waaw moom suma ko déggee tey laa ko mos a dégg parce que man euh, comme en tant qu'enseignant ñoo ngi def ay recherche di lire actualité bi di leen déglu di déglu Sénégal di déglu leen yëpp. donc actuellement su ñu waxoon bu njëkk ba avec le réseau des enseignants avec Youssou Touré loolu ñëpp xam nañ ñun fa demee ba affaire bi sooxe. mais ah, Fatick récemment lañ def. voilà ah. mais mais mais mais mais ah. depuis que Maymouna madame Maymouna Sissoko directrice de la Case des Tout-Petits a repris le MENR national man je pense qu'elle fait de son mieux. Elle a fait déjà la tournée nationale. Elle est partie voir tous les enseignants dans les différentes dans les différents départements. Oui. Et Par rapport aux activités, on sait qu'aussi qu'elle abat un, un travail extraordinaire. En témoignent les élections passées parce que enseignants yi ñoo jiite woon les pôles enseignants dans les différents en comités électoraux de nos communes te loolu mener bi ak confiance président de la République bu mu am si madame Maymouna Sissoko si tax mu ñu am loolu. Actuellement tamit la notre coordonnatrice madame Maymouna Bande Pikine est au conseil et est nommée conseil des collectivités territoriales donc reconnaissance ngi liggéey incha allah te dinañ ko gën a wane si di ñëw incha allah mais man moom tey laa mos a dégg euh, maintenant loolu du ñàkk am parce que lu mol no Sénégal lu mol ni réew mi donc les cinq départements du ñàkk benn département nga ma cité buy ñaxtu te loolu c'est normal. loolu tamit incha allah mu ngi ci dox jéego parce que c'est une dame de conciliation et day day nangu waxtaan ak nit ñi son téléphone est ouvert. est-ce que moom amul problème ak ñi fi nekkoon comme par exemple euh, euh, kii di Mohamed Suzanne. est-ce que ça va entre lui ak euh, Maymuna est-ce que Maymuna ak ki fi ku mu wuutu ci mener est-ce que seen relation ça ça ça ça marche. waaw xaw ma seen seen relation personnelle. Mm. mais activités yi ñu jot def dans le cadre du MENER au niveau national gisuma si Youssou Touré. Mm. maintenant Ahmed Suzanne Camara tamit pareil gisuma ko si au niveau des activités. mais il y a tous les coordonnateurs des différentes régions et des différentes communes. Mm. Euh, des différentes régions du Sénégal et des communes qui sont présents surtout euh, waxtaan bu ñu mujj a def à l'hôtel Onomo. Mm-hmm. où nous avons donc euh, Luxar. Euh, ak euh, comment il s'appelle encore les autorités du parti surtout pour échanger autour euh, du rôle des enseignants dans les élections à venir. D'accord. Au niveau de ta commune maintenant, comment se porte le MNR euh, Ma commune, au de ma commune, le MNR nous le, se porte très bien. On dit MEDER au niveau département, mouvement, donc départemental des enseignants de républicains. Parce que tamit depuis que Madame Maïmouna Balde, honorable Madame Maïmouna Balde, je dirais, qui est aussi au conseil des collectivités territoriales, Boumou On avait quelques problèmes, il y avait un peu de léthargie après donc la gouvernance de Thérèse Senghor, qui est maintenant au Conseil économique et social. Thérèse, Mais, Thérèse Senghor. Thérèse, non, c'est Thérèse Senghor, c'est pas Thérèse Faye. Okay. C'est doyen Thérèse Senghor. Maintenant, depuis que Mme euh, Maïmouna Balde Djelat commande, bi mhm. on s'est restructuré, on a animé le parti. Même récemment, elle a fait une grosse tournée dans tous les départements en allant vers les enseignants donc euh, de, de Benobo Kiakar, Djokhé Soukarukor. Ça, ça a permis à tous les enseignants donc d'animer le parti, d'animer donc euh, la mouvance présidentielle dans les différentes. On la félicite au passage parce que toutes les d' accord merci loolu loolu am na solo. Hmm. léegi yow yaa ngi ci euh, commune Djiddah Thiaroye Kaw. oui waa APR moom naka la demee foofu ak seen directeur bu bees bi. voilà APR euh, à Djiddah Thiaroye Kaw se porte très bien donc ñëpp xam nañu élection locale yi passé ñun ñoo gagné maire Cheikh Dieng bu fa nekkoon pendant presque sept ans xam nga maire bu nekk si benn commune bu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw une une commune très stratégique donc les les avertis les les analyses politiques. on l'habitude de dire qui gagne donc euh, Pikine gagne Dakar qui gagne Dakar gagne le Sénégal et qui gagne Djiddah Thiaroye Kaw gagne Pikine parce que c'est arrondissement Pikine Dagoudane Djeddah Thiaroye Kaw moo ëpp électorat moo gën a rëy parce que avec 66 quartiers. Mm-hmm. maintenant euh, élection yi locales yi passé on sait que certains c'était bien installé mais avec la coalition Benno Bokk Yaakaar dirigée par l'actuel DG des domaines monsieur Mamadou Guèye nous avons pu renforcer renverser la tendance sans mu am équivoque et il a été félicité par euh, le maire sortant Cheikh Dieng mm-hmm. et profiter au passage pour dire moo ngi def euh, liggéey bu am solo au niveau de toutes les structures depuis qu'il est arrivé il est en train de mobiliser le parti à Pékin et à la paire. Donc c'est un leadership non seulement de la commune, mais c'est un leader aussi de la du département de Pékin ñëpp xam nañ ci li may wax parce que par rapport à par rapport à tout ce qu'il fait euh, donc surtout le mois béni de Ramadan Euh, toutes les structures mu nekk handicapé yi mu nekk enseignants yi amul kum si jàppalewul donc parti moom noonu lay dexee suñ la jàppalee nga am ndombol tànk da ngay jàppale les cadres jàppale koo xam ne war na ko mun a am mu yelloo ko nga jox ko ko maintenant on félicite vraiment le directeur des domaines il a ba un travail extraordinaire dans le département et surtout dans la commune président war na ko ñoo ngi sant yàlla tamit bu ko président joxee ndombol tànk ba jëdë caale kaw on gagnait toujours sans sans être récompensé. Mais cette fois-ci, on a gagné, on a été récompensé par une direction. On souhaiterait avoir un ministère pour que nous cadrions nous Merci direction beaucoup. récompense là ou le... C'est une récompense politique. Ah bon? C'est un inspecteur des impôts et domaines, il est à sa place. Hmm. inspecteur des impôts de domaines boo xam ne il a gravi les échelons dans son dans ses services fu ñu ko dénkoon def na fa ay jéego suñ ko dëree mënoon nañ ko jox sax directeur PDG des impôts et domaines daf ko naroon gën a doxal parce que jusque là il a fait d' excellents résultats et léegi en tant que directeur de domaine moom il est tellement professionnel c' un cadre il n' pas une personne qui n' est pas à la place qu'il faut ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko renouveler les enseignants de la commune di ko renouveler seen accompagnement seen collaboration et incha allah on va faire élire le président de la république incha allah en 2024 d' accord léegi Mener moom ban rôle ngeen di jouer ci aux alentours ou bien ci entourage wu Euh, Mamadou Gueye bi nga xam ne jàpp ngeen ko des seen leader. oui c'est notre leader. incontesté incontestable ban rôle ngeen di jouer ci wetam. Euh, moom man ma diriger euh, donc mouvement des enseignants de Benno Bokk Yaakaar parce que. APR laa jiite a jit Djidda Thiaroye Kaw mm. a Pikine aussi je suis dans le bureau à Pikine c'est madame Maïmouna Baldé qui est la coordinatrice du département donc les enseignants qu'est-ce qu'ils ont apporté damay wax nag durant toutes ces élections et surtout à côté de monsieur le maire Modou Gueye DG des domaines moom xam na si lu a baax parce que président moo créé structure boobu du ñun ñoo ko créé c'est le président dans l'APR qui a créé cette structure et cette structure pratiquement gère l'école du parti structure bi mooy former les siégeants chez gens si si processus électoral bi les enseignants sont dans les comités scientifiques des di parce que day am comité de réflexion am comité d'organisation am comité scientifique am pôle enseignant comme nu mu amee pôle jeunesse amee pôle organisation dans les comités électoraux les enseignants ils participent à la formation des siégeants parce que ñëpp xam nañ comment donc siéger fait partie d'une fait partie d'une pièce du puzzle très importante mhm. dans le processus électoral enseignants yi ñooy dem ci kër yi parce qu'ils n'ont pas de problème d'entrer dans les maisons mhm. ñu am nañu relation ak parents d'élèves yi am nañ relation ak élèves yi donc en benn enseignant rek mun na embrigader pas embrigader c'est un mot trop fort mun na convaincre mun na sensibiliser une cinquantaine de personnes mhm. te enseignants yi c'est des enseignants qui sont politiques ils ont leur comi dans les quartiers c'est pourquoi ils sont des responsables politiques man mi di wax ak suis responsable politique enseignant responsable politique dirigé am ñu nekk samay am tamit enseignant ñu nekk samay ginnaaw donc loolu moo tax Modou Gueye connaissant l'importance du rôle qu'on joue parce qu'il y a le volet éducation dans la commune la mairie est là pour tout le monde on a aidé les étudiants et les élèves de la commune à faire des cours de rattrapage à faire les examens donc dans tous à avoir des bourses à la mairie avoir des logements à l'UNVC. Donc c'est l'amicale des élèves étudiants, plus en collaboration avec les enseignants qui sont passés à l'UNVC. Mm -hmm. On l'aide dans sa politique éducative dans la commune. Mm -hmm. Et au passage, je, sois, je, je salue doyen Asmaï, qui est mon coordinateur adjoint. Je salue aussi doyen Zal Diallo, qui est président de la commission éducation, avec lequel on travaille. bëri mhm. na y de détails entre opposition ak pouvoir voilà ñëpp tiit ne jàpp ne dëkk ba vraiment fu mu jëm musiba la. Euh, président woote dialogue national. Euh, lan nga jàpp ne war na mën a nekk issue au cas où ñu amaloon dialogue. au cas ñu am dialogue national lan mooy issue bi. Mm-hmm. ce sera une issue vraiment heureuse. issue boo xam ne ñëpp dañuy tàccu incha allah. Mm-hmm. parce que réew su demee ba ñëpp xaw a jaaxle. donc kilifa diine di si wax kilifa aada yi di si wax euh, ñëpp organisation société civile di si wax ñëpp di si wax loolu lan mooy wareef. ku njiite réew mi chef religieux sax moom lañ ko wax na woote waxtaan. parce que guerre sax su amee nit ñi si autour d'une table la ñu mujjee. donc man dama rafetlu bu ma ko déglee du début à la fin. discours am yëpp dama ko rafetlu bilan bu mu fi def lu mu fi liggéey lépp dama ko rafetlu dama si kontaan loolu moo tax ma koy jàppale pour mu nekkaat candidat pour assurer sécurité réew mi pour assurité jàmm si réew mi parce que loolu lañ mën a xam. donc su wootee dialogue dañ koy rafetlu di wax ñëpp nañ ko wuyu si si boobaa la ñuy mën a régler problème dëkk bi parce que tension bu fi am du yoon Sénégal xamul tension dañu xam dialogue ak paix. tamit ñu nekk ci ñu woo waxu dialogue en même temps yow dafa benn acte boo xam ne dafay dem ci liy wane ne da nga sérieux ci li ngay wax. parce que gis nañ ne waa PASTEF waa opposition ñi nekk ci prison bi quand même bëri nañu. Mhm. même si le président weddi na ne amul benn détenu politique fii ci réew mi. Mhm. est-ce que loolu man na mën na tax ñu am yaakaar ne dinañ mën a dem ci dialogue boobu man mën cee yaakaar leneen. war nañ mun a dem ci dialogue bi parce que il a le président de la République a déjà mis les premiers jalons. Mhm. conseil des ministres mercredi 29 lan la wax il a donné instruction au garde des Sceaux ñu revoir la question de l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall. Ah pour que ñu mun a participer aux élections à venir. waaw xam nga loolu ku ko wax il est dans de très bonnes dispositions. pour ñu dialoguer. et ku woote dialoguer da ku woote lu gën a neex mooy nga woote ñu wuyu si la moom dafa bëgg Sénégal yëpp wuyu ko ñu ñu ñu ñu convier du convoquer sax ñu ñu convoquer jàmm réew mi soxal leen réew mi dem avance avancé soxal leen dañu war a wuyu te kooku nag beddiwul kenn. te jox na premier pas en gaz de sa bonne foi il a instruit au ministre garde des Sceaux ministre de la justice de xool nan la ñuy amnistier Karim Wade ak loolu Karim Wade la bi bokk ci parti am Khalifa Sall Karim Wade il est du PDS. waaw mais am parti am. waaw Khalifa Sall tamit am parti am. waaw léegi lan ngeen di def parti bi nga xam ne mooy parti euh, en tout cas patron ci ci ci opposition bi. Mhm. te ay responsable am nekk ci prison. man dama jàpp est-ce que ñooñu leen bàyyi. Mhm. wax waxtaan. est-ce que loolu waru jiitu. waa su woowee waxtaan ñëpp la woo à commencer par actuellement kuy incarner opposition man je peux dire l'opposition radicale. Mm-hmm. parce que euh, opposition républicaine bi. Mm-hmm. ñoom c'est sûr qu'ils vont venir. Mm-hmm. Maintenant, opposition radicale incarnée par Sonko. Mhm. Le chef de l'opposition. Non, le chef de l'opposition par rapport aux élections présidentielles la ñuy wax. c'était Idriss Seck il était deuxième aux élections passées. c'était waaw mais mais élection présidentielle la nekk nekkuñu si élection locale ni élection législative c'est élection présidentielle la nek le deuxième c'était Idriss Seck te Idriss Seck ah on on vient de voir vient de sortir. loolu dina am lu mu gànnaankoor dina dina bañ a am lu mu parce que ces dernières élections gis nañ qu'il n'a pas pesé lourd dans le poids électoral moom Idrissa Seck ah, maintenant Sonko nag dañ ko ñaan mu ñëw si dialogue bi incha mhm. te président woo na ñëpp koy xaar foofu si ñëwul nag il a failli donc à sa mission parce que bu mu xool moom intérêt am mhm. parce que Sonko saa ñu ko déggee rek c'est son intérêt personnel pour ne pas aller répondre à la justice mhm. il est un citoyen comme vous et moi monsieur Kandé il doit forcément répondre à la justice ou par B il va comparaître mais loolu exempté ko comme le président nu wax jugement exempté ko o donc au pouvoir législatif l'exécutif n'a rien à voir avec le législatif dinañ ci ñëw pour l'instant ñu reste ci dialogue bi mhm. pendant que ñuy waxtaan waxu dialogue pendant que ñuy wax nan la ñuy def ba dëkk bi ñi tout cas tënku ci benn euh, acte yoo xam ne dañ koy dañ koy bokk jëlandoo mhm. pour que Sénégal nekk réewum dal nekk réew xam ne quand kenn ku nekk war nga mën a génn sa kër dem ci sa liggéey te doo am benn tiitaanga boo xam ne da lay ci journée bi mhm. moom mu bàyyi leen mu dem kam ber beru est-ce que loolu du doon quand même benn jafe-jafe ci ci doxalinu président Macky waa ñu ànd moom suñu tàkkale ko rek mu nekk mariage wala mu nekk réforce rupture la ñuy wax divorce la ñuy wax mhm. loolu tamit dañ koy su ñu sañoon mu des ci mouvance présidentielle ñu àndandoo dóoradoo parce que lool moo ko indi woon mhm. président daf koy noonu pour ñu liggéey au nom du Sénégal il n'avait même pas parlé d'élection 2024 soo delloo président mais comme que te te ça ne faisait pas contrat mais comme que dem na mais il a mais est parti de la manière la plus élégante ils sont par ils se sont quittés en de bons termes kenn xasul sa morom kenn yàqul sa morom ku nekk a chanté les louanges de l'autre mm. il a reconnu le bilan élogieux du président de la République maintenant moom c'est sûr que il a joué il commence déjà à jouer le dialogue Idriss Seck parce que dem na waxtaan ak président dem na si Sonko qui actuellement qui incarne l'opposition radicale dem na waxtaan ak moom. am na ñuy wax ne Macky Sall a Idrissa Sonko benn complot la encore Idrissa Seck du moins. benn complot la boo xam ne dañ koy tegaat ci kaw sénégalais yi. Mm-hmm. pour que ñu mën a waajal 2024 ci semblant de division. Mm-hmm. Euh, est-ce que loolu. <laughs> no xam nga sénégalais moom ils sont matures. ah ils sont matures les sénégalais sont matures. c'est kuy deal kuy complot. Ah. wala kuy def leneen sénégalais dañ ko xam. le moment venu la ñuy votel koo xam ne mooy seen yaakaar. mooy yaakaar ne réew mi incarné par le président de la République le président Macky Sall moo xam ne mooy coalition Benno bok Yaakaar donc le mot yaakaar se retrouve dans cette coalition là et la mouvance présidentielle. d'accord voilà d'accord am na solo. Euh, am na si xalifa Sall ak euh, Idrissa Seck lu war a mën a nekk la wala jàpp nga ne déjà. avec tout ce qui se passe là ak temps nga xam ne am nañu ko mhm. par rapport ak inscription ah, euh, liste électorale yi nga xam ne loolu pratiquement délai bu ci des bareetul waaw est que mën nañu mën a am amnistie ci diggante bi nii nii waaw ce n'est qu'une volonté politique une volonté donc de la nation et une volonté du président de la République président de la République wane na volonté pour amnistie leen il a donné des instructions maintenant que lañ moo des moom ñoom ñu nangu wala ñu bañ parce que njëkkoon nañ ko wax ñoom ñoo bañoon ah Karim Wade nee na moom daa deful dara. voilà voilà donc ñoom ñoo des comme que c'est la justice qui les avait incriminés kii cinq ans kii six ans de prison. loolu ñoom ñoo koy nangu wala ñoo koy bañ actuellement mais le président de la République moom il est vraiment donc apte il est vraiment il a donné il a donné ses disponibilités pour qu'il soit amnistié. d'accord euh, ñu nekk ci période boo xam ne tamit euh, euh, gis nañ ne dëkk bi dafa bari coow. en terme de de de de jënd ak jaay préférence nationale bi gis nañu ñoom Ablaye Sylla club C50. te amoon nañu benn ndaje boo xam ne plaidé nañu lu mel noonu. Mhm. ban ban jàngat nga ci am yow. Euh, donc euh, affaire la question préférence nationale. mooy euh, ñoo xam ne ñun sénégalais yi nañ taamu sol yére yoo xam ne suñu tailleur ñoo koy ñëw comme sa yëre bi actuellement soo xoolee la plupart des adultes. ils portent des habits de nos couturiers mhm. sénégalais mhm. suñu samoon suñu sañoon tamit tissu bi tamit sénégalais yi liggéey si usines yi mhm. ñu développé usines yoo xam ne comme Sotiba nu mu dee ñu am ay tissage ñu mun a sol suñu tissu comme au Burkina Faso suñu mbay mi le président de la République déglu ko def na si lu bëri bëri bëri ay milliards ay milliards wane na fu mu ko jëlee ba léegi loolu tamit dañu bëgg non cadre ñoo xam ne dañu génn centre ruraux de Bambey ñoo xam ne on a créé des universités agricoles ñoom ñëpp ñu dellu si mbay mi parce que loolu rek moo ñu mën a yëkkati c'est le secteur primaire moo ñu mën a développé amoo pays bi àdduna bu si développé jaaru pal mbay mi donc loolu nag loolu moo tax ñuy am problème ñuy wax consommer local consomé local nag ça doit être à tous les niveaux côté primaire côté secondaire et côté tertiaire loolu nag président dox na si ay jéego jéego yu bëri bëri bëri maintenant su ñu xoolee les grands travaux comme la construction de la ville nouvelle de Diamniadio les grandes infrastructures soo xoolee c'est les multinationaux ñoom ñoo yóbbu marché yi parce que ñoom ñoo ko mën a exécuter les entreprises sénégalaises quelle que soit leur force elles sont éparses elles sont divisées c'est des patronats par groupuscule ñooñu nag suñu mbooloo woon dina na mën a capter la plupart des commandes de l'État des fois suñ am na ñu ko amoon comme CSA ou bien Baratal. Mhm. on a vu que parfois liggéey bi du am efficacité. du am garantie. Mhm. loolu moo tax tamit état mhm. du jox koo xam ne du respecter. donc le contrat. su amee durée garantie vingt ans des travaux de la route ou bien du stade amul loolu mu yàq day tiit la prochaine fois. mais gis nañ fi tamit maintenant. préférant consommer national. Mhm. Euh, loolu du du gulet ñu koy degg ci ci ci ci venant du gouvernement du président Macky Sall. Mhm. gis nañ tout au début de son magistère. Mhm. waxoon nañ même dans les bureaux. nañuy jënd nañuy commander mais loolu mu jul fenn. est-ce que du benn slogan la boo xam ne tamit dañ koy yëkkati nii rek parce que le contexte le vaut. pendant que France dégage. mu ngi fexe ba Chine mal. bañ fee am doole. à côté de d'une entreprise comme Auchan. est-ce que du tamit du débat xam ne dañ koy yëkkati rek du am njeexital. non soo gisee man ma wax loolu par rapport à mes dernières recherches gis naa ay ñoo xam ne dañoo am doole. comme donc Ablaye Sylla qui je donne j'ai l'habitude de donner son exemple. parce que ces derniers temps moom laa gis ci presse te moom c'est un homme discret qui a qui gère une multinationale. parce qu'il a des marchés au Sénégal en Guinée euh, en Côte d'Ivoire au Mali il emploie plus de 2000 personnes. te moom moo créé fii donc 50 pour cent préférence nationale su ko waxee mooy il a essayé de contacter les grandes entreprises. ñoo xam ne am nañ doole. ñoom suñu lëkkaloo mun nañ capter donc les marchés publics de l'État. te loolu suñ ko amee xaalis boobu dañuy employer le maximum de sénégalais duñu mm-hmm. jënd duñu jël ay ouvriers yoo xam ne c'est mm-hmm. des chinois ou des turcs. Mm-hmm. ñoo xam ne ñoom ñoo doon gagné ay français ñoo gagné marché yu mag yi. yooyu suñ ko amee xaalis boobu capitaux yooyu ça va rester au Sénégal. te en plus ñoom dañuy socialement dañuy dem. di jàppale doomu aadama yi dans le cadre social. si dans le cadre du tamit gis nañ dañuy jàppale nit ñi donc combat boobu suñ ko mënee c'est à tout point bi ku nekk da nga ko war a xeex maintenant suñu waxee pour locomotive donc de l'économie nationale portée par le secteur privé du Sénégal loolu tamit ñoom dañ leen war a woo présent wax na ko keroog mais c'est le moment de réaliser parce que l'acte il faut poser un acte pour créer une manière une manière pour créer une habitude une habitude pour que ça soit dans l'esprit des Sénégalais le consommer local donc Ablaye la préférence nationale dañ koy jaajëfal lool na si taxaw président de la République tamit loolu ñu dëggal loolu ñu toog wax ñoom xool jox leen moyen tamit jox leen moyen wàññi leen taxes yi wàllu leen lu bëri pour ñu mun a jóg suñu jógee rek après nañ tee économie préférence locale nationale moom dina du yomb parce que gis nañ lee les commerçants sénégalais c'est des commerçants mhm. dañuy jël seen prix aj ci kaw mhm. parfois du am qualité mais fii lañ koy bàyyi dañ jëm xam ne quand même moo gën a yomb gën a. mais loolu gis nañ avec la réduction des prix des denrées de premier ministre gis nañ comment on a recruté le maximum de jeunes. et de moyens pour le contrôle soit efficace sur le terrain. maintenant comme que développement la ñuy wax comme plan Sénégal émergent la ñuy wax. Mm-hmm. c'est cette construction. Mm-hmm. du Sénégal. Mm-hmm. à travers l'eau à travers l'électricité à travers les routes les ponts. loolu c'est les grandes entreprises sénégalaises ñoo ko war a téye. comme ça capitaux yi des Sénégal. d'accord et loolu nag Ablaye Sylla lañ ci wóolu. procès wu Ousmane Sonko Mame Mbaye procès en appel boo xam ne dañ ko renvoyé woon. Euh, yéen waa APR euh, bokk na ci loo xam ne euh, daal leen yiital procès wu en diffamation mois de mai bi lañ ciy dem en début de mois en début du mois de mai. nan ngeen koy waajalee encore comme ça ay Sonko. jógee war a dem assemblée euh, nu mu tudd tribunal rek. Mhm. Eh, ngeen ngeen di jëfru. ah man de dama jàpp dama jàpp ne euh, comme comme j'ai l'habitude de dire je sépare l'exécutif euh, du législatif. donc juste su leen woowee citoyen sénégalais lañu lu ma mbay ñaa def. ba dem sans bruit ni tambour ni trompette. mais bokkuñu ñaar Ousmane Sonko war na ko mën a def ñaar ñaar yi bokkuñu. Maintenant, c'est C'est pas la même chose comme nous. Mais c'est des citoyens sénégalais, ils sont appelés par la justice. ils sont au même titre. Ousmane Sonko, le fait qu'il ait une casquette politique, le fait qu'il soit populaire. Et menace le pouvoir. Non, il ne menace pas le pouvoir. Le pouvoir, il n'y a que le peuple qui peut menacer le pouvoir, pas une personne. Il n'y a que le peuple, qui peut menacer le pouvoir. Comment Le peuple avec Ousmane Sonko. Ben, pas ay bojo bojo pas ay coow mooy tax ñu wax ne Ousmane Sonko mooy ñëw est-ce qu'il sera candidat on ne sait pas encore parce que son destin entre les mains du pouvoir. non entre les mains de la justice comme j'ai l'habitude de le dire. instrumentalisée vous avez écouté le président de la République il n'a rien à voir avec ces détails lui c'est l'intérêt supérieur de la nation c'est le fait de travailler ce pays là qui l'intéresse sénégalaise on a de on a on a les Afrique et du monde il faut qu'on ait confiance en lui comme man sama enseignant bëgguma ñu critiquer ma nu may doxal xanaa inspecteur bi ñëw juge ma mais du keneen mooy juge la may jàngale c'est les élèves ñu may jàngale ak l'inspecteur d'académie peuple tamit nañ am confiance au peuple sénégalais qui a toujours été mature qui a toujours choisi la bonne la bonne personne donc on pense que donc ci question de justice boobu nañu les jeunes comme ni ñu wax bu ñu topp foule bi bu ñu topp masse parce que la force restera toujours à la loi. la force restera toujours, toujours à la loi gis nañu ngor fii quand même. ay xale tuuti ñoom ñoo dem di lakk ay kër te mujjul fenn. waa loolu moom loolu jotul ñu tiit ci dëkk bi. loolu dañu war a tiit parce que ku jóg rek lakk kër jàmbur wala lëkku lakk bis public. loolu du yoon c'est des questions privées mais nit am na sañ-sañ état def dara wala commune bëgg def dara ñu manifester ñun lii suñu zone la bëgg ñu kenn tabax fi dara. Hmm. comme que gendarmerie moo fa bëgg a def benn brigade te brigade c'est pour la sécurité. ñoom fu ñu nekk c'est pour leur sécurité su fekkee ñoom pour leur sécurité ñoo na bëgguñu ko nañ xool beneen endroit ñu def ko foofu ñu xool na lañ ko defee te état balaa muy def dara si lieu il faut ñu mesurer fan lañ ko war a def. Mhm. te état nag su soxlee nit ñu dañu war a bàyyi. parce que l' état moo ñu tënk su fekkee à chaque fois état day soxla benn kër wala soxla benn yoon c' pour l' intérêt public. Mhm. et intérêt public su taxawee l' intérêt privé disparaît. d' accord merci beaucoup. lan ngay tëjee wax maintenant les les huit réponses que vous aviez les Non, c'est bon, c'est bon, comme ah, ça, Merci beaucoup. Donc, je m'attendais à, <laughs> peut d'autres questions, tellement je suis à l'aise sur le plateau. on a les questions. Voilà, donc <laughs> moi, je, remercie les enseignants avec lesquels je suis à de <laughs> euh, je remercie euh, la coordinatrice, euh, Madame Maïmouna Sissoko. Euh. Je remercie Madame Maïmouna Balde. Je remercie le DG des domaines, Monsieur Mamadou qui est notre leader dans la commune et dans le département. Je remercie aussi le coordinateur de l'APR qui est là, qui a, qui a implanté dans la commune et dans le département. Monsieur Mamadou Diop. Donc euh, félicitations à vous aussi, votre professionnalisme et nous souhaitons que votre agence aille de l'avant jusqu'à créer beaucoup de radios et beaucoup de télévisions. Merci, merci beaucoup monsieur Kandé. Merci beaucoup mbokku internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen jox daje dig daje ba beneen yoon fii ci Sénégal avec notre invité sur une autre thématique jërë ngeen jëf.